Ndeysaan arbitre baa wax ñaari mbëri li lamb nangoog bañ diggante diggante Aziz Baboye ak ki nga xam si ne nii moom mooy moom mooy Bada Faye numéro 2 arbitre bi sifflé na Aziz na nen Aziz Baboye moo ñëwoon ginnaaw moo waree Malika Ndeysaan Aziz Baboye moo waree Malika waaye Bada moo waree ginnaaw raay Ndeysaan. Trondo Père Bada doomi mbër jàngal bëre Ndeysaan ndax Bada Faye daf day def lam defoon digganteem ak ki nga xam moom mooy. Bébé Lac Rose ci kanam lay leer Aziz Ba Boy sànni na mu nekk fausse garde ak garde normal maa wax loolu ñaari xale yaa ngi noonu dara amagul de Aziz Ba Boy moo ngem moo ngem lu weex li ba dafay moo am lu maanaam lu vert li ndeysaan bada sànni na sànni na hey ñaari xale yaa noonu lan moo nar a xew ndax mbot la caxabal ndax door mu daanu loolu ci kanam lay leer laa ilaaha illallaah Aziz Baboy ak Bara Faye diggante Grand Ral ak Malika Aziz Baboy yooroo na jëlee ko bala door na bala door na est door mu daaw dam laay ñaari xale xeex na de Aziz Baboy ci SBT Média xale yi bokk na si xale yi génne Bada Faye ngeen jàkkaarlool Aziz Baboy mooy wan ginnaaw Bada Faye Aziz Baboy jël tànk ba daw na ko Bada kor na door door door door daw eh Aziz Baboy waay la ay waay ñaari xale

Aziz Baboy Bada Faye numéro 2 ñaari xale ngi noonu ba tey dara de ba tey dara amagul ba daa bu sa sew ñu ngi de. Aziz Baboy daa dem Ardo de. Aziz Baboy dem na Ardo. <laughs> ba dafay tekk dafa des daa dem ci entraîneur ba. lamb ji mënut a lamb ji lii mënu lii mënu si war a ñàkk de maa lay wax loolu. saar naa le El Hadj Ndoye maa lay saare El Papa Diagne maa lay saare naka yi tey yàlla jàmm yàgg waaw waaw ñu noonu. ñoom ñoo yor lépp loo xam ne moo jëm si sëñ Modou Niang muy Pape Diagne Seras ak ki nga moom mooy Cheikh Ndoye. Ménard Serre ndeysaan Asi Baboy mi ngi ci arro daa naani soow wala daa defaru ci naani soow wala daa makkiyaasu ci Saloum ngi noonu borom yëfal mbaree acca Saloum 2 waa mais siyaar naa waa mais mais mais amateur na ma ne sa de ah dinaa la woo koy Saloum doo borom yëmbal marin ndeysaan arbitre baa ngi ñaari xale yi sifflé na Aziz moo ñëwoon ginnaaw ngeen boo ngeen lu yeex li Bada Faye boo jàkkaarloo ñun moo def tent bi ñaari xale yaa ngi noonu SBT Média la abonné leen Aziz Ba Boy doon na jël tànk bi xeex nañ eh eh, eh ndax door mu daanu ndax door mu daanu door mu daanu ay waay Aziz dawaat na ñëw la ay waay ñaari xale yi ñëwante nañ de ñaari xale yi rabbi nañ seen contrat mat na sëkk ca première minute ba la la contrat mat <laughs> maa la wax loolu laay waay du fa yem de wol bit jàng la amateur yi bëgg ba comme am day météo xaw ma nu demee noonu rek. Badam mii. dégg naa ko mu ne deux points yi daa war a ñëw. Aziz Ba booy doxal dafa war a am benn point. laa ilaaha illallaah. waa Ndiaga Thiam. waaw mais nafa naa la sa vaaj mi ngi noonu. caatu Boston. maa ngi ñëw ñu waxtaan. maa ngi ñëw ndeysaan jaga caa bëgg noonu. le doomu Pikine. ndeysaan. alaaj Papa Ndiaye dëbb maa ngi lay ziar. ah dina tiib de dañoo ñamante de. dañoo ñamante. laay fi ne nii tekk danga xamante ne xam nga góor bala nga koo yab bala nga koo yab ngeen laale fi ne ku ne xam na sa morom. kilo góor yi ma sarax yow laa ci takk de. <laughs> ay waay mbër sarax kilo góor bi kontaan naa ci moom. mbër bi ma sarax kilo góor bi yàlla ko yàlla may ndam. xaw ma ban bëre la waaye yàlla ko yàlla may ndam ndax dama cee teg comme ñetteel guro daa manqué ma wut guro. arbitre jox na avertissement ba daf jox asi baaboy ku nekk benn avertissement arbitre bi waat na. yaa ngi Leewtoo na xam ne ba mu jàppee ko moom ak partenaire mi nga xam ne moom la ñu wax Soko Sim assurance ñoom dañoo yàgg Serigne Modou Niang Sénat assurance ñu ngi lay jaajëfal Soko Sim lay jaajëfal waaye soxna na fi Fall Fall kenn moom sama yaay sama xarit mi ngi noonu. bilaay ndeysaan. ah Bada Faye jàpp na. Aji Baba doo ñëw Bada Faye daw na ko sirip. lan moo nar a sama mbuus takkee mbaa jege na la ay waay Aziz Baboy daan na ko na ko jël boobul benn yoon rekk na loxo ya Aziz Baboy daan na ko Aziz Baboy daan kay Aziz Baboy eh laa ilaaha illallaah Bada Faye dem mérite woo jógal Bada Thank you.